jërë ngeen jëf yéen ñi taamu dakarnet.com bu leen fàtte abonné ci suñu chaîne YouTube ak bës fii di j'aime ndax ngeen mën di jot suñuy vidéo saa su nekk ñu di leen lu doy waar xawee fële ca kunun na benn maire bu ñu tuddee maire Ndioufa dëkk foofu ca kunun la ñu fekk mu génn àdduna ci condition yu métti métti métti bi ñu laajee benn ci dëkkandooy bi nag nee na ñu li xew mooy maire Ndioufa gorom bu tudd soit Souadou Ndiaye moo ko rey ndax goro bi dafa ñëw proposé maire Ndioufa ne ko dama la bëgg a sang ndax maire Ndioufa tànk yi baaxul bi mu nangoo mu yóbbu ko ci toilette yi nag tëj toilet yi daal di ko fay coincé ci la jàpp ci bakkan bi naan loo ko fa lu toll ci ñetti litres yu ndox par la suite mu sotti ko liquide bu tàng mer ju fa am ay lakk-lakk yu doy waar ci la jël benn karo kase dal di koy rendi ba sax ñu fekk meer ñu ci mu sàngoo deret ju bare bari du Njaay boobu nag bi mu defee kirimam boobu ba pare dafa bëggoon daw génn dëkk bi ndax ci la jël ñaari doomam ànd ak ñoom di daw xale yi góor yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk ba ñu ngi ko jàppee ci arekaar ba biñ ko jàppee nag waa dëkk ba sax dañ ko naroon ko naroon a faat gendarmerie moo ko mujj rawale ci rappel na kii di Souadou Ndiaye jëkkëram mu ngay dund fële ca États-Unis moom gorom bii di maire Ndioufa sax nee nañ selon benn ci ay dëkkandoom li tax mu paralysé du Ndiaye moo ko mësa dóor kuur ba mu jaaree fa ñàkk ñaari tànkam muy mbir mu doy waar jamono ji ñuy wax ak yéen nag kii di Souadou Ndiaye mi ngi ci loxol gendarmerie ñu xaar rekk fu wànnanti di mujjee ki gëtam muy mbir mu doy waar mu xew fale ca kunun